yëpp fu ne la information doon jóge média yi mu di réseaux sociaux télévision rajo yi xibaar yi mel ni si tulleeg màlle àdduna gi yëpp doon seetaan li di xew fi si réew Sénégal waaye yëfi nag am na ay njeexital ndax xibaar yu bëri yu teguwul wasaare nañu ko si am na sax ñu dem bay utiliser ay yoo xam ne ni yàggoon na lool gannaaw nag ba mu gisee loolee yëpp Ibrahima Bakhoum di journaliste am xam-xam lool ci métier bi mu ngi fàttali taxawaay bi journaliste bi war a am buy dund situation yu ni mel. gis nga journaliste il faut fàttaliku ne. moom liggéeyam mooy benn na jaaxanaay ñaar na fexe ba li muy wax du di ko mu gis ko xam ko wala bokk ku xam wax ko ko li ñuy wax source ku xam te wóor na ko wax moom na ko gis wala bokk ku fekkee na ko gis loolu yëpp bu ci amul benn dégg naa mooy yées ci liggéey journaliste wala boog ñoo xam ne ji li ñuy réseaux sociaux yi am na ci ñoo xam ñoom boo nekkee sa YouTube yore sa chaîne di wax lu la neex loolu yow la engage journaliste mënut a wéeru ci wax liggéey kooku. moo ngi rafet lu nag mat gi nga xam ne ni yenn média yi wane nañ ko ci mbir mi ndax njombe yu bëri yi ñu defoon ci atum 2021 bi la yoon maytu nañ ko bu baax a baax. wax dëgg ni journaliste yi liggéeyee euh, moo gën a dal moo gën a méngoo ak euh, éthique ak déontologie moo gën a méngoo xew yu mel nii. Ibrahima Bakhoum rafetlu wul it fitna gi nga xam ne ni fitnaal nañu ko journaliste yi sa sigi coor ñaare journaliste yi li ñu war a njëkk a nangu mooy journaliste bi fa muy liggéey si sénégalais yi la toogal kon yow sañuloo ya nga nekk sa liggéey ba pare nga ne moom nangu ko tere mu liggéey ñenn ñi nag ñoo koy tey pour lan naa bañ parce que lii may def nii lu ñaaw la bëgguma média yi gis ko si gis-gisam li nekk jamono gi di xew fi si réewu Sénégal fetul jekkul da dafa nekk di tilimal démocratie bu suñu réew bi nga xam ne modèle la woon si dendu Afrique